saa lii am Sénégal Sénégal rek la am. Hmm. kese. c'est du li nga hmm. su fekkoonte ne ay xonq wala ay affaire de mystique wala affaire de xarfa foofa kon Afrique jël coupe du monde. Hmm. mais résultat bu ñu def muy demi finale coupe du monde muy Maroc te ñu ngi koy soog am. quart de finale lañ dañu dem te équipe yi ñu jàppale ñoo gën a mystique yëpp dem nañ fa moo xam muy Nigéria. moo xam muy Cameroun. moo xam muy Sénégal moo xam muy Afrique du Sud. Ah ñoom ñëpp dem nañ fa. moo xam muy Ghana dépassé wuñ loolu gis nga football le soleil gis nga football liggéey la il faut faudrait nekk ñu arrêté bàyyi affaire yooyu ñuy xaar ay noonu nañ takkal géer bi benn ndombo nañ ko takkal téere nañ ko sotte ci affaire bi mais il faut qu'on arrête il faut ko ñoom seen bopp ñu ngi naan football football est professionnel man ba dama jàpp ne tey professionnel agul loolu y'a rien de professionnel dans ça loolu moom mooy li njëkk c'est une très bonne décision dama leen di féliciter ci loolu mais nag yàlla nañ ci continuer mu warul nekk ñu sanctionner kii bàyyi kii nañ koy jëfandoo pour ñëpp. loolu mooy benn bi. Mhm. ñaareel bi mooy da nga wax léegi ci Ligue pour wax décision wax aussi li nga xamante ne def nañ ko mais man dafa am ci semaine bi benn décision boo xamante ne bi dañ ko jël. Mhm. muy décision boo xamante ne j'ai pas compris parce que dama jàpp ni. fii laa ko gisee Sénégal. Ah, concernant la la nomination du meilleur coach de Ligue 2. ok ah mais je ne peux pas concevoir euh, naka la euh, euh, Ibrahima René Diouf jëlee. championnat Ligue 2 ak bu ak ak équipe bu Fatick bi. nga bëgg a jàpp jël Moustapha Seck. est-ce que ñoom wax wax ne xam nga critères yu gars yi jël. ba teg li nga xamante ne mooy jox Moustapha Seck. waaw mais non critère bi mooy dañuy dañuy dañuy dañuy euh, récompenser ku jël championnat bi. wala critère mooy nombre de buts marqués. mais mais je pense euh, exemple. Euh, cinq un cas litigieux pas litigieux. Mm-hmm. mais boo xam ne comme il a tu as dit tout suite le choix. d'une personne sur quelque chose les résultat de la finale mun na nekk mooy comme li ñu wax ñu xool ki jël pay mais souvent tamit gars yi dañuy dégage ay critères yoo xam ni xëy na peut-être parce que ñoom foofu aussi bu fàttee ne Ligue pour ils ont des entraîneurs ki yore ki gérer compétition yi c'est un entraîneur doyen Amsata moo fa nekk ancien directeur technique xam na te soo xoolee gis nga même man dem quand je me suis approfondi ren France kan lañ jël meilleur entraîneur c'est l'entraîneur de Lens te mm-hmm. il pas champion. aise aise moom lañ jël dama ni. dama ni xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga tu sais. ce de dire là. Mm-hmm. c'est très important coach. Mm-hmm. man du ma gis numéro un bi ni numéro deux bee dàq na ko. non li nga wax moom Mbaye. waaw ah. man j'étais région tey ah, du ma gis numéro un bi ni numéro. waaw non c'est que yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow meilleur défense gardien de but mu nekk sa équipe. Mhm. ñooñu kan moo leen tàggat kan moo leen teg foofu. mais c'est le coach moom moo leen teg foofu. mbay mbay. wala man je ne vois aucune logique. warul nekk entraîneur mais pourquoi pas mbay mënu la Ligue 2. <laughs> mais mbay c'est Rémi Ibrahima le premier de la Ligue 2. mbay mënoo gis numéro 2 bi. Mm-hmm. on a vu la saison de Lens. Mm-hmm. et foofu mën nañu jàpp ni avec les gros moyens du Paris Saint-Germain. Mm-hmm. jël jël euh, sonal leen. ak ñoom Messi ñoom Neymar ñoom Mbappé nekk fa yow avec les petits moyens yi nga am mun nañ ko xoolee foofu mais fii on parle de la Ligue 2 là c'est la Ligue 1 on de la mooy meilleur entraîneur u Ligue 1 lu entraîneur génération foot. Hmm. alors lu mu jël lu mu jël championnat bi. pourquoi on l'a pas donné au deuxième. mais peut-être critères oh, yi